alors niñ koy faral defee saa su ne émission bi nga xamante ni moo di Star à l'instant comme son nom l'indique képp koo xamante ne ndaanaan nga waaye itam képp koo xamante ne da ngay waajal événement cette fois ci autour nee naa la doo Pama avant tout dama koy bàyyi mu nuyoo képp koo xamante ni yaa ah, soppeem nga waaye itam ak xaarloo gu yàgg mu ñu xaarloo Pama ñu ngi lay nuyu. good morning everybody yes. <laughs> comment ça fait-il nga tardé pare naa ñu good morning everybody yes. non non mais mais noonu la xam rek répétition yi moom yombul. Mm-hmm. mais nag euh, vraiment. Euh, ñu ngi leen di nuyuwaat donc mon presse bi yëpp laay wax ndaxte gis nañ ni ñu jàppee ci événement bi ñu ngi comprendre mhm. parce que ku ne xam na événement nag dafa metti mhm. événement dafa metti surtout événement wu euh, euh, xale bu toll ni Pama mhm. waaw donc yombul vraiment gis nañ ni ngeen ci taxawee

parce que bon am lo don la am lo inspiration don la bi ci dess nak liggéey la ba ko liggéey ba toy ba dog ba ba ba don ko def waaw liggéey liggéey yu am <laughs> ay liggéey yu <laughs> alors le Sénégal yëpp di wax xawma dégg nga ko xawma ma ko Pama Dieng dafa am fit. waaw mais non la noonu la da nga Sénégal bu non am na fit. non kon Sénégal. wala wala wala. non Gallo du ragal Gallo pas amassé la Gallo pas la. waaw fit bi dama ko doon man doon ma mhm. waaw et puis yàlla boo ko gëmee doo ragal. Mhm. sunu borom dafa bëgg ko ko ko ko wóolu. Mhm. du fit sax wóolu yàlla la rek.

loolu kay kenn waxatu ko fu mu ne date bi ginnaaw suba. bon xam nañ ko. waaw mais xam nga yàlla tamit lu mu dogalul daal. Mhm. peut-être que bu teeloon wala bu jotul woon sunu borom du ko dogal. Ah, yàlla mooy mooy xalaat ci xelu ñëpp. Mhm. mooy wax ci làmmiñ yëpp. Mhm. alors lan lañ mën a xaar grand théâtre ma di pas 52 PC yi la ñuy xaar. Ah. waaw dëgg yàlla danga maa xeebal sama 52 peese. non loolu kenn naa dafa neex ñëpp ko bëgg. da kaa tuutal. non non kenn du tuutal ëpp naa tuutal. waay waay. ndax mën nañ xaar yeneen tamit ci Pama tamit. Grand Théâtre nañ fa xaar lépp. dañ fa xaar ay ay bakku ay tame. léegi <laughs> yu am solo. waaw ñu ngi joob ci côté yëpp. yaa ngi gis gars yi fii vraiment ñu ngi job ci côté yëpp.

koku mom dama koy ñaanal yalla gudd fan rek mhm. dinaa événement bi taxawoon na ma ci comme Ndiouga jeng. Mhm. donc maa ngi koy ñaanal yalla mhm. awma ma fayam et sabu sabu nen koku sama yef la parce que ñu bari ñu xamoon dañ nane Pama ki gelam la ah. mais sama gel la effectivement dama gel ñi ko nopp ñep ñak nañ <laughs> alors nena duma ñew ba dem te du moko tudd sa relation ak seigne Axma mbake koku nak sama xarit la sama serigne la sama lepp la Saint Ahmed Mbacke Ibn Modou Kara ah dama koy ñaanal dama koy ñaanal borom fay ko xolam amul fayam donc koy ñaanal mok ngi ñaanal di ñaan di aussi également Serigne Djeli Fall Tilala Fall Cheikh Abdourahmane Fall la plus de 20 ans maa koy ñaanal vraiment di ñaanal ñëpp. est que mun nañ xaar Pama dio ak mbokk artiste am certes que di nga leen invité mais est-ce que dina am duo seen biir. événement bi événement Ndiogo Dieng la. événement artistes yi la. defe naa man artistes yi sax ma ko gën a yanu. te nañ leen gis ñoom ñëpp. incha allah euh, instant bi macha allah Pama pare na amatoo stress tiitoo defoo dara. ragal yëpp yàlla la wala boo Euh, da ngay dem grand théâtre nee naa la grand théâtre à chaque fois ku fa ñëw même spectacle même événement est-ce que tey Pama dina am benn différence bu muy andi benn touche personnelle concernant li nga xamante ni mooy le show du vent. incha allah jàng nañ ci ñëpp xool nañ ci ñëpp ñu ñu fa jiitu. Mm-hmm. et ñoom ñëpp mm-hmm. bu dee dëgg neex yàlla yóbbu nañ fa. ci ne mm-hmm. yóbbu na fa lu bees. xëy na def nañ sax ba mu romb. donc man jàng naa ci ñëpp maa ngi ñaan yàlla li ma jàng mu may ma ko ma tare. di leen ñaanal jàmm. Chakati, chakati, chakati, chakati.